ka ñeel na la yàlla dong dong alhamdu ak cant xamdan cant goo xam ne laa jasa adiitu pay liqaa ilihi ñeel aji waxam ji moom cant gi ilaari daaka lu dul sa ngër mande waaye nda tarfati ak fa xëfa xippi kulli aynin bépp bët wa tanafusi ak nooyu kulli nafasin bépp bakkan mu ne yàlla ñeel na la yow dong dong dong dong ak cant cant goo xam ne maanaam kenn mën koo pay moom jëmi sëñ bi moom mi ko wax sax maanaam laa jasaa ah liqaa ili maanaam diitu pay ñeel aji waxam moom jëmi sëñ bi lu dul sa ngërmande yow yàlla kon cant gi cant gi muy cant yàlla di ko delloo ci yàlla lam ci soxla muy ngër ngërmande yàlla ndax wari diwaanoon mi ne laay akbaru ngërmande yàlla moo féete kaw lépp loo mën a gis moo tax mu ne ko ñeena la yow dong dong dong ak cant kent koo xam ne diitu fay ñeel aji waxam ji moom jëmi sëñ bi la ci jublu boppam lu mooy sa ngërmante kon cant gi lam ciy séentu lam ci bëgg mooy am ci ngërmal yàlla waaye nag waaye inda tarfat yi mooy nit ñi tey kenn ku nekk boo xëyee diir bu gàtt sax looy gendeku ak li ngay xëf de bi waaye ak li ngay nooy yépp sëriñ Tuubaa wala nga xam ne moo yéeme déggal lool bàyyiwul dara wa inda tarfati soqafa xëtti kulli aynin bépp bët wa tanafusi ak nooyu kulla nafasin bépp bakkan bakkan yépp li ñuy nooy surna bu ne bët yépp li ñuy xëf di ko xëtti surna bu ne fekk nit a ngi am rek fekk nit a ngi am rek moo xam ba ci bàyyi ma ji nga xam ne loolu sax bàyyi ma yi dañuy dugg mboolem li yàlla jox bët rek nga xam ne yemul ci nit rek te muy xëf di xëppi rek sëñ Tuubaa nee na wa inda tarfati fa xafa xëppi kulli ayn bépp bët wa tanafusi ak nooyu kulli nafasin bépp bakkan mu ne ko alayka yàlla nekk ci yow muy cant googu wa ala kitaabika yàlla nekk ci téere bi di alquran wa ala rasulika yàlla nekk ci ndaw li nga xam ne yaa ko yónni te mu yónni te salaay waaye nag wa ala kulli ma ak ci kaw lépp loo xam ne ixtartoo yaa ko tànn yow yàlla lii ñeel ma tamit li ma tànnal ba noppi ma di ko jaamoo ni nga ko bëggee seetal loolu bindeef yëpp li ñuy xëf ak xëpp bindeef yëpp li ñuy nooy yëpp nga xam ne loolu yëpp xeeti cant la goo xam ne bindeef yi dañ ko war di sant seen borom ndax dañuy wax na nit ki nooy gum nooy war naa sant yàlla mi tax mu nooy nooy ga bala ngay xam nooy moo am njëriñ bala ngay xam xool moo am njëriñ nga dem ba gumba wala nga dem ba sa róogi di teqlu ko sa jëmm bët ci ñu nekk seen biir bàmmeel sax tey wa arqabul ahyaa lil amwaat raddun ila dunya maal ayaati walaw suwaatan faqat li yaxmulu saalihatan tan fa moom in xafaloo Sëñ Tuubaa ne ne ñi nekk seen biir bàmmeel tey boo leen fuggoon ñu jógaat duñ mbébét lenn ngir dellu si lu mooy rek ngir dell si waat jëf-jëf ju baax ngir lan lañu romb yëpp dañ koo riccu dañoo wax ne sax nit ku baax sax dana riccu biir bàmmeelam ngir dellu si même aljana sax buñ fa da nga rëcc ne ay waay waay man mii de bu ma demaatoon adduna danaa def loo xam ne bu ma ñëwee fii lii ma am nii sax danaa am na ko ndax am na ñoo xam ne léeg-léeg nga teral leen ñu ne lii lii yeewuma ko nangam nangam fekk da ngay jëf lu tuuti yàlla dugal la ci biir yërmandeem di la jox ay xëywal yoo xam ne kenn xamuñu ñu toll bu ko defee da yow da ngay tiit ne waaw lii lii yàlla paye ma lii jëf ma ko yàlla dalaa dugal ci biir yërmandeem xepp la ci kon mbindeef bu man a doon réccub yéeféer ak bi jullit dañ du bokk kon gis nga nooy ku ko ñàkk wala ku dem ba koy bëgg a ñàkk bay bëgg a ñàkk danga da nga xam nooy nooy nu mu seeree ak ñaata lay jar mat naa bàyyi xel sëñ Tuubaa nee na nag nooyu bépp mbindéef ak xafa xëj bi bépp bët bu mën a doon rek mu a alayka yàlla nekk ci yow yàlla wa ala kitaabika ak sa téer bi di alxuraan wa ala rasulika ak sa ndaw lii di yónnente bi wa ala kulima ak ci kaw lépp loo xam ne ixtartoo yaa ko tànn yow yàlla lii ñeel ma lépp daal da ciy jublu rek maanaam ak cant lay nekk maanaam moom jëmmi sëñ bi nag moo wax loolu maanaam mbindeef yi tey li ñuy xëf di xëppi ah ak nooyi mbindeef yi li ñuy nooy yëpp mu mel ni moom ci moom ci jëmmum mooy sante yàlla noonu Allahu akbar mu mel ni moom ci jëmmi boppam mooy sante yàlla noonu matee na ko de laa ilaha illallah waaye nag duuna xel mi ka duuna masiatika kooku moom xam-xamu yàlla rek ko mën a xam ni sëñ bi di sante yàlla rek ko ko xam ndax wa am na laa xadaatu bi kul seen alman nee na ko yow ñeel na la cant koo xam ne amul yemukaay lu dul sa coobare wala lu dul sa xam-xam kon coobare yàlla ak xam-xamam rek ndax faalu li maa yuridu yàlla moom coobare moom rek moo ko xam ndax day xool lu ko soxla mu def te kenn du ko laaj sëñ Tuubaa nee na ko xafa xippi bépp bët nooyu bépp bakkan yàlla nekk ci yow muy cant ko ma dil ko cant waaye nag yàlla nekk sa muy cant ko ma dil ko cant yàlla nekk sa kaw ca kaw yonent bii nga xam ne mu yonent bi salaay salaam waaye nag ci kaw lépp loo xam ne tànnal nga ma ko maanaam mu doon ak cant goo xam ne maa la koy cant nooy bi bindeef yi seenu xëfa xëf yëpp tubaarikal mel ni maa lay cant cant gu toll loolu kenn mos koo dégg mu ne yàllaahu yow yàlla yaa rahmaanu yow borom yërmaane ju matale ji yaa rahimu yow mi nga xam ne yaay aji yërëm ku la soog ba ëllëg yomal xeew rahmaanu tëgg foxlaan la mu mel ni ab taw rek bu tawee xoolul yéefir bi xoolul julit bi moom daal day taw rek kuy ji nag dem ji ku bëgg a jëriñu da nga ji di ndax xaysun afaada man istafaada comme ni yonent bi mel rek yonent bi taw la boo xam ne maanaam kii muy jëriñ mooy ku saakoo jëriñu taw la boo xam ne bu xasee taw ku muy jëriñ mooy ku sàkkoo jëriñu kon bu yàlla ji tawee nga bëgg a nekk ba nit ñi ne góob nga jël sa góobaane damay góob yi dañ naan la yow kat ba yoo tool noon la yomal xiyaam mel yomal xiyaam bu fekkee dangaa ñëw. tabarakallah suñu borom nee na falaa nuqiimu lahum yawmal qiyaamati wasnan bii nit ñi dañ peese seen jëf yow nga ñëw taxaw dañ naan la yow falaa nuqiimu lahum yawmal qiyaamati wasnan may nit ñi da bay ciwut na bayoon kon tey fii amoo fi lenn loo peese mu daal di xam ne ñàkk na safara la jëf yàlla ci yàlla musal wañu moo tax ma ne saalak jasaa'um jahannam bi maa kafaru wa taqatu ayaati wa rusuli rusaan mu ne yaa raxmaan yow borom yërmande ju matale yi nga xam ne yéeféer beeg jullit bi ñëpp xaalaa ay bàyyi wax daa yi yaa raxiim yow borom yërmande ja nga xam ne yaa koy jeglal ñu la doon jaamu ci kaw suuf nga xam ne bu yowmal xiyaamee day tudd arrahim nag dugalee ci biir yërmande bi yàlla nañ ci bokk mu ne ko lakka ñeel na yow dong dong lii la ñuy wax xasaru ci bayaan alhamdu ak cant cantu xol wa sukuru ak cantu cër xaala duniyaa fii ci àddina wa ala laaxirati ak ci alaxira buñ ne alhamdu mooy cant xam ne xol koy def buñ ne nag mooy cantu cër effort ixmaloo aala daawara kon yàlla waxut waa kër na leen ijlisoo déedéet leen toog leen de waaye da leen jëf leen ala daawuda sukkuran wa qalilun min sa sakkur kon cant googu mooy cantuk cër goo xam ne da ngay def effort ndax su borom ne ne su ma la tus al na yoma seen an naami bu yomal xiyaamee laaj gépp xéwal gu ma leen xéwale woon waaye xéwal gi may njëkk mooy bi ma la joxee wér fan nga ko dugal ak kan nga doon jaamu loolu lay suñu borom di njëkk laaj nit ki yow waaw yow maa ngi la bind dofoo dara jotul la anaat wér gu ma la joxoon koo ci doon jaamu yooyu yëpp bala ñuy lijjanti yeneen mbir yeneen code yi kullum ati yomal xiyaam du fadal mu ne ko lakka ñela yow dong dong alhamdu cantuk xol wa sukur ak cantuk cër ala dunyaa fii ci àddina wa ala laaxira ak ci àllaaxira fa salim maa ngi ne ñaan nga dolli xéewal wa salim ta nga dolli wóoru wa barik waaye nag wa ali la ñaan nga may lii ñeel nekk yu sell maanaam mbégtim àdduna alaxira moo xam ne day sell dara du ci rëx dara du ci rax luy xeeti nax nax mu ne wax fi nii maa ngi la ñaan nga fegal ma ak daarahuma seenu nax nax ñoom ñaar muy àdduna ak alaxira qabla njëkk tawajjuhiha ñuy jublu ilee di jëm ci man waaye nag wa qablu ak njëkk tawajjuhi may jublu ilaa asbaabiha jëm ci yuy waral seenu sabab jëm ci seenu sabab yi mu ne yow yàlla maa ngi la ñaan nga may ma ci àdduna ak alaxira mbégte àdduna ak alaxira waaye yoo xam ne yu sell lay nekk nga xam ne xam xam gim xam ne yàlla moo sañ lu ne moo tax bi ñaan yàlla da koy ñegee noo xam ne luy xëcc nax nax wala luy yàqu-yàqu du ci am moo tax ñaareel boo jàng ci xasida yi mu naan la bila afatin wala kadrin wala xururin wala stidrajin ya nga xam ne ñoo taxoon mboolem ñu fi jiitu woon yàqule yooyu sëñ Tuubaa buy ñaan yàlla xam gim xam nu yàlla xam fu muy jaar yàlla fu muy jaar yonent bi da koy ñaanee noo xam ne ñagee ko noo xam ne lenn luy niru ak yàqu-yàqul bu ñëwee dana ci ànd moo tax mu ne maa ngi li ñaan euh, nga may ma mbégti mu na alaxira waaye nag yoo xam ne yu lay nekk nga fegal ma seenu nëx nëx ñoom ñaar nga xam ne bu ko doon misaal mu mel ni mbànn moo dañ ko duy ba mu fees mar lool waaye fekk mu nëx nga xam ne ay larxi rek ci nekk da koy séexloo naan ndax du tey sa xel lu mu du tey nag moo tax nag tabaarikal la nga bañ koo naan waaye du leneen du keesoo ndox mi moo tax mu ne maa ngi ñaan nga fegal ma seenu nat ndax ñoom ñaar muy adduna ak alaxira njëkk ñi may jublu waaye nag wa qabla tawajjuhi njëkk may jublu ila asbaabiha dem ci def dem ci di def seenu sabab lu mel ni tey lu ñu tere wala lu xaraam wala lu lënt ñi xam ne lii dañ la ko tere ba noppi nag nga dem di def sabab ja boo defee sabab bi yaa yaa teg sa bopp ak nekk ci yow kon nag wax nii maa ngi la ñaan nga fegal ma daaru ma seenu nax ñoom ñaar muy adduna ak alaxira qabla tawajjuhiha ko ñuy jublu ilay di jëm ci man waaye nag xam lu wa qablu njëkk tawajjuhi may jublu ila asbaabi ak jëm ci def seen sabab léegi nag mu ne ko amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla mi nga xam ne bi defi lépp lu ñaan yàlla da ngay gis ne ñaan yu am solo lay nekk moo tax bu daanee rek da ngay gis mu ne amin yaa rabbal alamin ngir lu yonent bi waxoon ne ku ci ñaanite dara bu ñaan gi daanoo rek nal amin ndax bu dëppoo amin malaayka yi suñu borom da lay nangul kon gannaaw bi mu jee ko ci cant yooyu mu jox yàlla te muy cant ko am doole googu mu deel indiwaat inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman muy laay joo xam ne rot na ci gi ñaari yoon ndax moom la ko tënkee mu ne inna yàlla wa malaikatahu moo ko ay malaakaam yi soloona ñi ngi julli ala nabi ci yonente bi yaa ayyuha allazina e yéen gaa ñi nga xam ne amunoo gëm ngeen alquran ak yonente bi salloo na ngeen sax dàkk di julli alayhi ci yonente bi wa sallimoo ta ngeen salman tasliman ak salman sunu borom tabaaraka wa taala moo ne ñun yàlla ak sunuy malaayika ñoo ngi julli ci yonent bi salaay salaam kon nag yéen ñi gëm ñëpp da leen julli ci yonent bi tey sëlmal ci yonent bi salaay salaam kon yàlla waxul yaa ayyuhan naasu wala yaa ayyuhal lazina naasu wala yaa waaye ñi gëm ba noppi ñoom lay wax ndax julli ci yonent bi moom ab yéeféer mënu ko ki gëm rek ko xolam baax rek ko man te yonent bi nee na farata la sax diiru dund maanaam julli ci man benn yoon nee na ba léegi yomal xayamee ki gën a yee ci man ma di ko ràmm nee mooy ku bëri lu mu daan julli ci man moo tax Sëñ ne yéen ñi gëm suñu borom nee ne julli leen ci yonent bi tey sëlmal nag ci yonent bi salaay nag moom comme yàlla da koo def bu nekk moo koy ak malaayikaam yi ñu maanaam mu nekk loo xam ne euh, tabaarika la fiixlu amar la ci mboolem mbindeef bi muy jëfee ndigal ndax yàlla dana yéen ñi gëm rek julli leen ci yonent bi tey sëlmal ci yonent bi te moom ci biit amoon yi ci la bokk muy ñi gëm moo tax mu ne ko labbayka wuyu naa la ci sa wax jooju mooy wax ji nga wax ne yéen ñi gëm julli leen ci yonent bi tey sëlmal ci yonent bi léegi nag man Seexul Xadim la bay ko wuyu naa la rabbi yow sama borom wuyu naa la mooy xasida gi yëpp julli ci yonent bi la dafa wuyu yàlla ci li mu woote moo tax booy xool xasida yëpp li ko waral mooy wuyu gu wuyu yàlla moo moo moo tax booy dem ci xasida yi muy def salaatu yëpp moo xam gis nga boo defee jàlli bi tumaraat bi itam dana ko wax lu mel nii la bayka wuyu naa la la bayka wuyu naa la rabbi yow sama borom wa sax dayka yow mi nga xam ne nekk na ci yow texeeg na ak alaxira wal xayru ak yiw yu kulluhoo lépp bi yadayka nekk na ci sa kàttan doo ko firee loxo doo ko firee loxo dafa bokk ci baat yi nga xam ne dañ leen di taawi donte loxo lay fii waaye bu ñëwee ci yàlla da nga koy taawi ndax yëddullaahi foofu ay dim kàttanu yàlla kawe na mboolem loxo yi kon dafa bokk ci baat yi nga xam ne imaam Maalik dafa ne comme lu demee ni baatu istawa wala yëddullaahi yooyu yëpp dañ koy taawi lu demee ni baatu istawa yemoo na yemoo moom imaam Maalik dafa wax maanaam istawa moom mahloom la waaye nag melo melo melo bi ci bopp moom lañ xamul maanaam wal kayfiyatu majhuulu waaye nag wa su'aalu bid'atun nee na bu dee yemoo léeg-léeg ñu ne diw kat toog na ci lal bi ba yemoo wala buur bi kat toog na ci gàngu ndaay ma xam nga loolu nit xam na ko waaye bu fekkee istawa da ko wax ci yàlla ngay dawal sa xel loolu moom nan la mën a nekkee kon déedéet doo ko doo ko firindoo istawa mooy not na not na lu koy borom xam koy def yeddu itam loxo lay tekki waaye bu dee bu ñëwee ci yàlla kattan lay kattan lay tekki tabaaraka la ci bi yeddi yil mulku xam nga nguur borom kattan rek ko mën a am nguur borom kattan rek ko mën tikk moo la bi yeddi yil mulku waaw kon baat yi demee nii kon kattan nga koy firi moo tax ne la béyk naa la ci gannaaw ak wuyu rabbi yow sama borom wax sama deykat yow mi nga xam ne texit ënnako àlaxira wal xëyu ak yoyu ku loolu yëpp bi dekk nekk ni ci sa kattan xam da ko mbir moom ma nekk di sa jaam boo xam ne dama lay jaamu waaye nag xadimu ma nekk di liggéeykatub xabdika sa jaam te muy bi waaye nag bay na yadayka ma nekk ci sa katam tabaaraka la tàllal sama ñaari loxo taaliban di aji sàkku nag bi jaax yi ci darja yonent bi waaye nag min ka mu bàyyi ko ci yow fii daareen adduna ak àlaxira lan mu ne xayree ka yiw na ak àlaxira xaa ilan mbir moom mooy aji wax nag bik ci sa kattan waaye nag fii ka ci yow li wax ci que ngir sa jëmm ji alkarimi ji aji tedd wa kaw na ko ak sa nekk loxoo di la ñeel yow yàlla bi tawfiq ci dëppal ga wala inaayat yi ak ndimbal ga waaye ruumu tamay sàkku nag alkarami ak tedd nga Allahu ko yow yàlla wuy naa la ci woote boobu nga woote yow sama borom yow mi nga xam ne texeg ëdna àlaxira ak yiw yëpp nekk nañ ci sa kattan mu takaayal boppam nag ne ah man de xab du ko xadimu laa ab jaam laa bu lay jaamu waaye nag mu xabdika laa di liggéeykatu sob jaam bii di liggéeykatu sob jaam bii te mu yonent bi sa salaam waaye nag may tàllal sama loxo nag nekk ci sa kanam yow yàlla di toroxlu di sàkku ci dara jaam ju tedd ja may sàkku nag yiwu adduna ak alaxira woo xam ne dafay bàyyi ko ci yow waaye nag may wax nag ci sa kattan waaye nag di delluwaat ci yow ngir sa jëmu ju tedd yëpp ngir sa jëmu ju tedd ji képp yow mi nga xam ne mboolem tawfiix yëpp mi ngi ci yow mboolem tawfiix yëpp tabaarikala mu ngi ci yow ndimbal yëpp mu ngi ci yow kon na maa ngi sàkku ci yow ak dëppal te muy ak tawfiix maa ngi sàkku ci yow tabaarikala ak ndimbal waaye maa ngi sàkku ci yow ak tedd nga yëpp maa ngi koy sàkku kon wa kaw naka sax nekk loo ñeel yow yàlla bi tawfiix sa dëppale ga te mooy tawfiix wala ay naajata ak ndimbal ga waaye yorooma te may sàkku alkarama ak tedd nga